جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا xale yi nga xam ne moom la yàlla may ñu génn ren comme ni ñuy ñi daaw ñu génnee woon amaat juróom yu génnaat ren. alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaam ala rasulullah lii motivation bu mag a mag pour Sénégal motivation la aussi pour jeunesse bi mais rawat na tout tànk yi nga xam ni defal leen teraanga ji dañ ko yeyoo ndax wax dëgg yàlla dafa am benn waxkatu olof adage bu waxoon ni ku diwul baa doo ko teree lu mu bàyyi. soo ko newul siin bu ko séenoo lu dul ëllëg nit ku doy waar ci biir société bi soo ko newul miim nag bu ko ni miimal dara parce que luñ ko accusé rek sañaale fa lu ko raw loolu ba siin miimara laa la indil muy tënk rek li nga xam ni tey valeur sect wala valeur radicale yi nga xam ni l'islam daf ko engagé ci alquranu karim ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xuluquhu alquran jikkoom yëpp mooy alquran te fii ci Sénégal tàmm nañ kon buñu jëlé xalé yi neexal leen ci wàllu alquran day nekk ben motivation mais également day nekk ben soñu bo xam ni wayjur yi d'abord war ñu jël yittee pour jangal seen doom yi alquran. encadrement bi moy bi ñëwé Dakar lañ ñu joxone ne nañ leen taxaw pour gëna mëna yombal seen coono mu wàññeeku su ko defee bu ñuy compétir yàlla mën la dimbalé ñu mën cee génn ci jamm yalla défal nañu lolu aussi noppalu nañu dal nañu. yàlla def ñi ci génn génn. tey ñi ngi kañ ay xale yoo xam yi dañoo jàng alxuraan wattu ko tari ko ci tari tari bu mucc ayib waaye ñun ñëpp ñi ñu war a sant mooy ñi nga xam ne ñoo may Sénégal tey jii ñu taxaw daje bu mel nii mooy maam yi ak maamaat yi. kilifa diine yi nga xam ne ñoo jël alxuraan ñoo jël diine lislaam samp ko fii ci Sénégal jëlee ko ci El Hadj Omar Foutiyou Tall ci xaadimu rasool ci El Hadj Malick Sy ci El Hadj Ibrahima Niass ci maam Limaamu Laay ak cheikh yi nga xam ne yépp nekk nañ fi ku leen doon lim fii ba suba doo pare tey jii lii suñ ko amee ñoom ñoo tax ñu am ko moo tax dañuy rafetlu torop fédération bi bi mu jëlee Serigne bu Mbacké jël ko mu nekk parrain dama wax ne tuddee nañu bisu alxuraan koo xam ne kii àddinaam yépp alxuraan la ko liggéeyal daara la ko liggéeyal. sens rek sens la rek ndax ñépp mën alxuraan. amna na sax ñoo xamne dañoo yaakaaroon ne keneen ki moy jël premier moy ki jóge ndar ngir ni nga xamne waye essence la ki la yàlla dogal mu génn ren comme ni nga xamne non la dogale won daw am ñu génn bu déwénee itam ñeneen génn inshallah rabbi qad aflaha almu'minuuna الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضونه